ba tax na nag daal dina am ay information yoo xamante ne nii daal dinañ koy fësal bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur kii di euh, Serigne Abdou Aziz si ibnu Serigne Moustapha Sy Djamil moom nag kii di doomam bi nga xamante ni mu ngi toll ci vingt-huit ans moom moo ko daal di faat ci noonee nag la daal di daw waaye nag daldi nañ koy teg loxo ba tax na sax ci kanamu enquêteurs yi moom xale boobule daal dina wax rek ni que moom li tax mu def loolee moom moo di kenn considéré ko woon ci li nga xamante ni moom moo di biir famille bi looloo tax mu daal di gis boppam daal di faat ki nga xamante ni moom moo di papam di sëriñ abdu Aziz Sy ibnu sëriñ Moustapha Sy Jamil kii di yaayam sax daal dina àddu ci mbir mi.